fi la jëmee xaw ma ndax ñame nga koom déet waaye lëndëm na de. sànq bi nga wax loo ma wax da nga ne ñi ngi may juuñ baaraamu tuuma naan surtout Amary Ndag laa su ma juumul bu xaw ma lan damay toog ci xilaafa gi yaa ko xool sa bopp <laughs> kon ci yoon <laughs> guy gi ki nga xam ne nee na lu moom moo daan Balla Gaye ñaari yoon ki nga xam ne moom moo daan le chasseur bombardier. Ah, ki nga xam ne ah. seetal ndax bëgg nga ko waaye ñu ngi koy ruumandaat. ku ma war a doon ku ma war a doon. da nga ma ci per léegi nag per daa mel na ragal la quoi. man ragalu ma nee nu daan na baala gay ñaari yoon nee na nañu ëlbatiku na moom moo daan bërki démb Bombardier moo mujj ci kaw Bombardier nee na nañu ndax kooku ñamee nga ko wala ñeme woo ko loolu la mbokki internet yi di laaj nee nañu naa la ko laaj ba xam léegi yow seetal sa xel kan la dem ci ñooñu. man xawla xam nga man dama bëgg lu ni fàng da nga a naan diw lañ lay laajal wala diw ak di ma indi la réalité yu weex lu wóor lu wóor man bëgguma parce que je pas temps pour émission ngay naan nangam non non. non mais guy gi xamaloo mbëri fi nekk mënoo. Ah, bëri na bëri na déggu la man sama choix bi ma def ren Eumeu Sène la Gris Bordeaux Modou Lô du ma taay di mais bu yàggee laaj di laaj dañ naan kii dafa bëri wax te am naa droit bëri ñoom parce def naa lu tax mu mën a bëri ak ñoom côté boobu laay waxee. Eumeu Sène la nga ñuy wax ne la fii mu ne ñoom lu senegal am ci combat combat guy gi bu nu gis ci këru àdduna nee nañu Eumeu Sène moo leen gënal loo wax ci loolu. yoo koy père loolu tontu la ku naan tëjal buntu beeg xaw ma loolu du ñu boole Eumeu am ñetti qualité yu ma gis ci moom ba tax sax ma ko ci loo bi Eumeu daan la du gàcce du tax nekkoo champion mais nga daan Eumeu Sène kaamil ngay nekk yow waxuma la champion mais kaamil ngay nekk que di nga jël bëre ba jël fecc ma jël bayra ba. te boo ñëwaat stade ñoo ko doon supporter lay supporter xas dañu xam ne ndaanaan nga daan moo tax lu ma mën a am bu ma tëdd nelaw nga bañ ma fay su ma paree nga jox ma délicat ko te mu am qualité bëri yu wóor nekk ci moom dama ne làmb ji dàq fee bëri mais ku ko fi dàq bëri gisuma ko man mii maa ko wax man sama idole ci bëre saakajoor di ko ñaan yàlla fëgg bopp bi mais su koo xam ne moom laay siiwru bu bëree man bu bëree yaram yëpp nekk bëre bu feccee ma siiwru ko kooku Sa Thiès la Sa Thiès mooy bëree di fecc ma sentir sama bopp man ñoo ma seen Sène mooy sama idole mais Sa Cayor mooy sama idole mais li ngay sant ñu ci bëre laay wax dama bëgg muy leer mais nag qualité mi gis moom baax na am na xol bu rafet ama bu la daanee jooy boo ko daanee mu jooy yéen ñëpp jàmm bu ngeen jàkkaarloo ba ñu ngi njëkk gis borom dafa am genre hypocrite yoo xam ni muy làmba muy ñëpp am na ñooy gis seen bëñ te nekk suuf deret moo ko lal mais il faut y réfléchir nga xam ñooñu ban genre lañ mais Eumeu fréquenté wu ma ko. mais chaque jour mën naa bala maa tëdd dina am information ci moom parce que nit ki tam boo bëggee bëreeg moom faa nga xam qualité lii ak lii ak lii du ma toog dina yàcc muy moom muy Modou Lo muy Gris Bordeaux ah kon mbër dina def loolu di bëgg mbër ba pare topp ko di ko suivre di xool ses qualités ak fu mu toll sii mi ngi contact yee saa yi mi ngi ci forme yee mi ngi ne yee ci la la nekk nii yee ñu ngi koy dox ak yow waaw doxuñu ko ak yow waaw non booyee mi fan lañ féete mais kat combat combat bu neex la non nañ tey mënul ñàkk père yow père doo dugg jékki-jékki dugg ci dara ci neen boo ci génneen nga ciy génne ëmma booy dugg ci moom qualité yu wóor yi tax nga dugg ci moom ëmma mbër kaamil la te ko jàpp ni sama combat ak moom lu ma am moom a gënal bu taxee da yomb samay supporter nax nañ seen bopp ëmma su ma jëlee daf ma bëgg a daan ci lim jógee humilier guy gi daan guy gi rek moo koy neexaat munu maa ñëwaat ñoo naan day bëgg a bàyyi bëreeg deux ans ko deseeg ñoo naan du ngemb ku ma ko wax man dama xam ne bëggoo ma mais guy gi foofu li ma jaaxal moom mooy bàlla mënul ci moom dara ñaari yoon moom wax naa ko léegi nee naa la kooku yëpp na waa géej waaye mais nag euh, ki la ki la arrêté ki Eumeu Sène ki Guédiawaye man du ma ne sax ki la arrêté ki Eumeu ki Guédiawaye Gouye Gui parce que arrêté ko loolu day wax bu ñaaw te Guédiawaye am na fi fans am na fi supporter ni ma amee Pikine mais dañ naan ki nga xam ne defetu euh, Guédiawaye da koy yemale ci guy gi la ko yemale incha allah mm. parce que tamit nit la koo xam ne man ku ma respecté la euh, a bëri moom du tax ma toog naan non bu ma jëlee ma humilier ko màgget na non non jamais la vie à part làmb ja lay xalaat à lu muy doon ci man mm. te bu jeexee mu wax ji rek loolu du mën a nekk seetaan nga combat am ak Lac de no déggoo li ma la la ko def wañ. xanaa déggoo ma la wax. dama ne la dama ne la Eumeu Sène dama wax qualité ba pare doog ñëw ci moom je personnellement pour la responsable pour moi samay bopp man maa jël sumay responsable bopp. porte porte responsabilité pour moi dama mais en mai pour la affronter Eumeu Sène incha parce que non non non guy gi bàyyi li nga may wax loolu. Ah. mën nañu ne guy gi nas moo ko dugal ci lii xam nga gars yi dañoo gaaw ci dugal nas parce que ñëpp xam nañ sama bras nas la. yàlla xam ne li. na sax loolu lay wax ne ma sama waa ji ñeme nga ëmb seen de ëmb dama ko ragal de ma ne ko sama waa ji man ëmb rek laa bëgg. man de ëmb ñemewu ma ko. man su ma ko daanee kenn du weranteeti sama mbër mais loolu man xam naa fi may waxee mais nag tey dañuy ñaan yàlla rek promoteur bu koy dox mu njëkk a seeti ëmb bu seetee ëmb seen na woo nas déglu ma rek wax bu télé laay waxee promoteur bu wax bu ñu wax lii ñu mu ñëw discuter ñun ñaari baat. na génn ci télé bi ne guy gi dafa ragal Eumeu Sène du ñëw nga taxaw naan noo lin ko fay ak linu ma fay Eumeu Sène maa ko war a fay bëreeg moom te laa ma ju laa ma ko dàq xam nga tax ma laa ko dàq dañ naan dafa jun contre Modou wala day demee noonu te xam nga Eumeu Sène billaahi billaahi wallaahi taalaahi suy bëreeg man est-ce que du def lim rawoon ci contre parce que nit la ko xam ne sang bu baax bi mooy daw ci yaramam boo déggee sang bu baax bi gor la Zemel 200 francs Zemel 203 du nangu tey li ko daloon di ko dalaat xam nga combat bi day metti guy gi damay seeti promoteur yi de te xam nga su ma nekkee di wax ni sax mu jël suñu temps rek day ndroog ëmb seen rek mooy émission bi mais nit la ko xam ne man boo ko bu la daanee du sa gàcce boo ko daanee nekk kaamil dama nekk lu garaaw man dama koo topp man damaa topp ëmb seen ba mu dem bu amul lii na génne da nga da ngay fen man ak turandoom ëmb seen man ma sol benn maison bu sokola boobu maa ngi ci mbappet di toj di teen sama bab bi toronique sax laa boole woon ak mbasin bu sokola gars yi neen xoolal bii dof rek toronique benn guddi ëmb seen yor benn décortable deux portes sol benn ensemble bu weex pàcc jël benn sarbet def ci ginnaaw. tout blanc bi ñuy fecc ba tourné nii tourné tourné boobu da doon faas. Mhm. Eumeu Sène daa dem ba tibb tànk bi. def ko ci siwo ndox xooj ko sangoo ko. ah. Eumeu Sène junior da bëgg a dof ko man yàlla naa mel ni kii man daan daan na contact si jamono yi am na ku mu amal combat. di contact suñu ginnaaw fii mu ànd ak Eumeu Sène junior. Mhm. boobu champion la ñu ngi may wër. Mhm. mu sol ngemb lu gàtt dugal ko ba ci biir ngemb li mel ni slip ñu ba ñu jégal ma ci kàddu gi ñu ne Eumeu Sène a ngi boobu la sama entraînement yàqu. nga di ko seetaan. toog gisuma ma toog di ko seetaan keroog bi ma ñuy entraînement ci suba gi daan naa ci benn nit kee xale qualité boo xam daan boobu ci moom laa gisee mais nag boo gisee may wax lii du nekk wax ci baaxuwaay ji eh, du wàññi sa baax dara na ñoo xam te dañuy bëgg ak bëreeg nit ki génn di sóob lañ koy wax bu làmb jotee duñ ko def. mais guy gi Eumeu dafa daan Gris Bordeaux. kenn ku ne xam ne li may wax Eumeu Sène bu làmb ji taxawoon loolu mooy ba bakkan lay doon parce que man du ma bëgg mu daan ma dama bëgg yéeg moom it du bëgg ma daan ko parce que fi mu la mais du teye boo ma laaj ci Eumeu Sène dinaa xool mais lu ma mën a am moom su ma ko amul am Modou Lo su ma amul Modou Lo am Gris Bordeaux sama choix la def naa tax ma te làmb ji père boo bëggee dëgg-dëgg euh, Bombardier ñëpp porte yi waaw Bombardier yi moo tax sax ñoom ñu war a xam ni grand contre petit ren force la chaque jour dañ may woo naan ma yow xanaa Bécaye da ko fay émission bi may def chaque jour mu guy gi Eumeu diw ak diw diw ak diw. ñëpp a koy wax même yow sax damay dégg nga di ko wax. mais dañu war a def gën a. ñëpp a koy wax non non. sponsor sax loolu soxla. non da ngeen di bëre. ah da ngeen di bëre loolu moom mooy li ma loolu loolu force la. Boy Niang ñëpp naan Balla Gaye. Ama Baldé ñëpp ngi ëlbatiku naan Modou Lo nga xam ne fi mu ne kenn xamatul foo jëm. guy gi seen daj euh, au passage di di jaale Pape Dia. moom laa waroon njëkkee. mais xel day fàttu. mbaa demoon nga Mbour. non suma kilifa la. xaar suma mag la. nijaayam la waaw waaw xaar jabar ji. man nijaayam la moom sama mag la. wax nga dëgg sëñ Cene ba. ren ren. togg yi nekk sama kër ren. jabaru Bombardier moo jiital lépp. Mm-hmm. Mm-hmm. muy ku ma jox cër. reeran ci gàmm gi muy ku ma jox cër ku ma respecté war mun sax yow man maa la mag moom tontoo guy gi la may wax Bombardier tamit quand même noonu xam nga Bombardier tey Pape Dia tey ma seedal ko Pape Dia day nit ku baax ko baax Bombardier dafa am combat bu mu doon bëree ma ma toog ci tale benn benn kii benn suba petit déj wal fajari ñu laaj ma ma leen diw yàlla na daan Bombardier parce que euh, boobu sport ak géewaay wala sport ak li may dund te ba gëm ko moom moo nekk ma wax li may wax ba pare làmb ji jeex Bombardier daan diw diw ñëw ñu toog Bombardier xam naa mu xaw ma mer ci côté boobu loolu <laughs> daan ñëw rek aju dem toogee fële. ah boobu kan la moo kan la xanaa moo Balla la woon. waaw waaw boobu moo Balla Gaye la waaw. xam nga léeg-léeg nga tudd nit. non loolu du dara boo tudd non mon père. gis nga wallaahi ci émission na nekk maa la laaj ndax man maa ko tuddal sama bopp dama ne xanaa moog Balla Gaye la. moo tax sànq man la ci ndax bi nga ne mu daan diw ak yooyu man maa ci eggal may la mu daan Balla Gaye. voilà kon xam nga tey mun naa tëb waxee ko nii rek te laajoo moog ñu ni dafa soxor dafa nangam te demeewul émission rek la dafa am ñoo xam ni commentaire yi comme li ma la wax rek am na ñoo xam ni ñu juddoo fi ñu war a juddoo mhm. internet ñor leen mhm. même buñ gisul lu ñu war a wax dañ naan ah diwkat duñ saaga mhm. mais dañuy gis ñoo xam ni tey képp koo def koo gis mu nekk kii rek valableul wala juddin wi juddin wi valable xam nga juddin dafa am solo juddu dafa am solo moo tax nga nekk ci internet bi saaga am na ñoo xam ne bëgguñu kenn moo tax nag su may wax rek damay calculer di xalaat te comme que chaque jour damay wax ñu may xoolal man ñi ñi wax ñi wax ci internet bi kon je pas droit parler pour ma moo bala moo génn lu may wax rek day leer côté boobu laay waxee léegi nag après Bombardier bi mu toogee noonu ñëw nuyu ñëpp aju muy nuyoo nuyoo Pape Dieng ndeysaan mi ngi ci dëgg maa ngi fen mm-hmm. ñëw ba ci man lëngu moom mm-hmm. non kii seer la waay bàyyi ko foofu rek espoir jeex na jeex na man ko non à partir de jour de tey moom ku muy bërit ma lay faral parce que sama yaay woo na ma xam naa sax ma bokk moom mais affaire géey laa sóoraale affaire yooyu Pape Dia dama eh bay bu ko ci laa xam ni Pape Dia nit la moom sax fekk fi ma toog barke alxuraan karim loolu la ko ñëpp seede guy gi ñëpp taxaw noonu am na ñoo xam ne nee nañu xamuñu numéro Bombardier mais numéro Pape Dia nañu xam gàmmu gii passé bis topp bi muy dem moo ngi yaayam suma kër lañ jaar mhm. jabaru ba ma jëy sax gàmmu suma kër lay gàmmu ñu toog ñu waxtaan la ma wax ba tey mi te sama combat bi jafe naa ko sama combat bi avant may ma koy may bëre déggante nañ téléphone mais ni mu doon waxee ci man billahi noonu lay seedalee sama adversaire qualité am ak ak yeneen yoo xam ne ku baax mooy def lii kon moo tax ma xam ni Pape Diop Pape Diop ñëpp la woon mhm. pab ju du pab Pape Diop Bombardier rek parce que Bombardier tey yor na benn langage boo xam ni ku mu dàqul communiqué macha allah yàlla bu ko ca topp ku mu dàqul communiqué ci làmb ji mm-hmm. dàqoo ko communiqué te gëm ci Pape Diallo ko ci Pape Diallo ko man wóor ma ci Pape Diallo ko parce que Bombardier nekkoon nit koo xam ni mm-hmm. bu njëkk ba bi muy doog a ñëw mm-hmm. fërëx fërëx def li muy def mais bi ko Pape ji récupéré en xam nga ni Bombardier mi dafa changé dëgg la ñu bëri dañ koy roy moom man nag suma mag la maa ko may jabar mais tamit suma la moo tax bi ñu wax keroog ma dem Mbour ñu daja maa ngi moom fekk ma ñu daje Mor Fadam ma jël ñu jox ma micro ma leen ku muy bëral ci àdduna yàlla na la daan ñu ne ma li mu wax ma leen yàlla na la daan maa ko wax te du ma ci reculer <laughs> waaw li des moom sama kilifa la famille bi sama famille la ay daraay bañ demee ci dëj bi sax bi ñëwee journaliste ñi ngi may jël kenn ko naan ma jël la ma ne ko lii suma dëj la mhm. nekkuma fi pour parler ratatatatat di wax mhm. mais li may dund sama xol li may yëg mënu ma ko booleeg wax mhm. ñu bëri dañ maa mere bi journalistes yi ñëpp ay ñoom baay baala BM ñoom ñëpp ñoom surtout Guèye ñoom ñëpp tiim ma ma leen non man sentiruma wax wax dëgg yàlla waaw xam nga wax da ngay am cent toog ñu jël la yow sa xel mi nekk fi ngay wax mais sentiruma wax. waaw ah, parce que man li man mi non waaw. parce que euh, su ma dëj la daal. mitit kenn mënu koo booleeg waxtaan. bi ma demee di jaale yaay ji. Mhm. dem naa jaale après ma nekk suma ruq. ma ni garaaw naa dem jaale ñoom sëriñ man ambulance Mao mm-hmm. Persa Kajoor mm-hmm. bi ñu joxe suñu jaal bi ñu joxee suñu jaal ma ñëw après ma dem quoi parce que man xam naa ma li may sentir parce que mbokk la jabar ji dama ne la moo yor togg gi yëpp ci gàmm gi kër ga xaar di nu ko nuyu di nuyu Ibrahima di nuyu képp foo xam ne famille xaar nga famille Bombardier famille papam papam bi mu ñëw lu mu xat-xat papay Bombardier mm-hmm. billaahi dafa jug bi ñëw wax ak man 10 kàddu yu wër yoo xam ne nii dëgg li ma la yëg-yëg ma ma ma wàcc waat sama bopp toog ci suuf ba mujj gi journal naan may leen ñu ma ne ko kii mooy papa yi ki gaañu mooy mm-hmm. papa yi sëriñ mm-hmm. kon bala maa jaale sëriñ moom laay njëkk a jaale ba pare mm-hmm. mais di ko ñaan yàlla yóbbu ko àjjana am nañ ci yaakaar yàlla bu ko waaw jërëjëf guy gi xanaa rek ñu dellu si waat tuuti en arrière ci ginnaaw ma bëggoon laa laaj nag euh, sa nga xam ne boobu ñëpp ay gone noonu ay Balla euh, gay ay euh, Lac de Guiers ay Baye Mandione nekk fii ñoom Khadim Ndiaye numéro 2 nekk fii yow ngay génn yow tamit ñëpp di génn ñoom Ousmane Diop nekk fii jamono boobu wax dëgg yàlla xanaa ci promoteur yi amoon na promoteur boo xam ne moo ëpp li muy tëgg sa combat. non au passage di ko nuyu di ko ñaar yàlla fu ma toog dama koy wax sama émission mu mujj def bii ko ko wax sëñ ñaa kenn ku ne war nga am àllarba jox ko ko kenn ku ne àllarba sëñ Modou Niang war nga koo jox du ma toog ci télé sant ma ko gërëm ma ko nuyu ma ko nit ku baax la tarbiyoo naa ko jàppale na ma fuf bu jàppale am wax dëgg yàlla nit ku baax la jeex na dama daan ñëw toog cogg def lépp mu ne ma mu koy jëw jëw paal dana ko booy bii ku ko jàppale mbër lay doon de ah, kii mhm. yow dama la wax lu dul deñ mhm. ma dégg ko muy ku baax mbër mu fi génn sëñ mënu yàlla génne ku fi génn moo la génne ku fi génn moo la génne man am na kaane boo xam ni huit combat la ma tëggal huit combat huit man daal damay jekki-jekki oto bi def wii wii wii ñu ne luy yuuxu ñu ne guy gee bëri woon beneen dimanche bi mu ñu naan wii wii guy gi guy gi ñu ne lan la ñu ne guy gee de bëri <laughs> moo daan damay toog ba yàgg mu am na année boo xam ne bi ma njaaxam di daan doo bi ma building di daan damaa ñëw ama ko ma bëril loolu Iba Mar la ku ñu woo ku ñu woo ñu ni ah, guy gi moom baax na ñu woo ñu ni guy gi baax na mu woo kii ma ne ko def ko main libre mu def ko main libre ma léegi sa waay yow nañ bëri rek amul galaaj amul dara wala sëñ Modou ñaa dagg sama xaalis fukki junni jox la ñu bëri man maa bëgg bëri sama waaj yow it xanaa ragal man combat maa ko tëggal sama bopp mu ne waa d' accord nañ seet ménage am boobu dafa naa paa yiri ñu seet na d' accord ñëw stade ma bëri daanu dem mais ba ma bëree daanu dem man xam naa ne li ma daan parce que tabaskee ñëwoon yoru moon mënul ñu jox ma ma jënd ci xar entraîné ma def ma musique dem bëri ñu daan ma te la taxoon ma def ko yàlla tey seetaanu ma tey defe naa ne chaque année tey waxuma la 30 xar mais maa ngi bëgg a ci 100 xar te maa ngi koy doog wax mais loolu jëru ñuy wax mais la ma doon def ko te yàlla ma war a jox ci a a jox ñi sama boyeeg ñi nga xam ne ak yeneen ak yeneen ñu jox seen loxo jotu seen mm-hmm. mm-hmm. tamit ay doomu rek lañ ni amee def ay rëcc-rëcc noonu la ñu amee def lu baax suñuy lu baax yàlla na ëpp suñu rëcc-rëcc mm-hmm. yàlla mënoo ko yàlla na ko yàlla ay jaam rek lañ guy gi sa ban combat moo ci gën a gën dugg sa xol neex la nga xam ne tey jii naam daal nga am ay victoire waaye combat bi daal mooy victoire bi la gën a neex. bi may daan Ama Baldé bi ma koy duma dumay métti yàq kanam gi ma koy subateel bantamba di ko seet si kanam gi newi toll ni mbërum bàmmeelu mbër mënul xool bu baax boobu mu gën a neex non combat boobu parce que lu tax àdduna ànd moom xam naa ci lu bëri ba ma ci waxee ñu bëri yàgg dama leen xaxar. non mais waxtaan rek guy gi. Ah, moom. Mhm. ñi la gën a jege sax dañuy dem ci moom wala ñu ay détails yu kenn xamul foogoo wuñ ni man damay daan Ama Baldé. guy gi nga ne ñi la gën a jege daan na am ñuy dem ci Ama. dara laay waxee ñi la gën a jege bi maanaam nekku ñu nekk sama kër. xam naa mais ñi nga foog ne yow tey ji ñoom nga jox lépp ñooñ ñooy jug dem di ko wax boo xam ne Ama Baldé bi ma koy njëkk a jàpp di ko yanu dañ maa jaay bu ma jàppoon barke alxuraan dama ko yanu bu jug ca kaw dóor suuf bu jàppoon mu dëgg rek billaahi ci kaw nga koy fekk mais dañ maa jaay sama premier contact bi ma jógee États-Unis deuxième contact ma simmeeku di contact may xool ba xam samay wax dina dem wala samay entraînement dina dem mm-hmm. Ama Baldé damaa jàppanteeg euh, sama benn boy bu ñuy wax Malal Malal du sax sama boy su ma grand la Malal waaw mm. bi ma malal téye ni ma nii ngay daan amee ba ñu contact tuuti rek ma toog yónnee ndox bi jël ndox naan noo ko naan nii di di noyyi ah, non déglu di noyyi bala maa tëdd guddi information bi dem na bi ma xëyee suba Saliou Séréer sama benn boy bu nekk ci marzingue bi mm. mun woo mbër yokkal koofar bi moo ko loolu mënu ma non dem naa fi ñoom Ama doon ñu ne ko vidé ko ñaareen bital ndox lay naan ma reebeer gisoo combat maa lay wax bàyyoo ci xel nee naa la bi ñu ma jox ndox ma leen naanu ma dafa am lu may wane États-Unis laa jógee xam bàyyoo ci xel. ak guy gi ku ne daf la ku ne daf la. mi ngi lépp lu may wax moo ñëw ko teel naanu ma. daa am lu may wane dañuy amoo koofir daa am lu may wane moom boobu las na loxo yi bàyyi na tàng yaa ngi tàng ay puso koy ruux mënul taxaw bu baax baaboo ñëw di wax ak mu dégg ko zil ba di wax ak moom ko man boobu xam naa li ma xam parce que boobu fa ma ko téye moom ko vidéo buñ bëri atoon comme ni mu daanal boppam buñ bëri atoon beneen dix minutes waxuma la daanal boppam mais dama bëgg am lu ma wane woon condition nag moo tax ma ni combat bu gën a neex mhm. ma torna dem di gis ay nit yoo xam ne ñu jóge ay feneen ñëw naan noo guy gi nanga ma sant yàlla ah, ma sant yàlla mhm. xam fi may teg sama tànk mhm. nuyu leen bañ a xaxar barke yàlla ba léegi waxoon leen dara. ba ma xëyee suba mardi ba topp ba ñu ma jox sama bi dama leen a woo ñi ma jox leen xar ñi ma jox leen kenn kon vingt mille vingt mille trente mille trente leen ñaanal leen ma ñaanal leen ma te man xam naa ne def nañ ci est ce que sax yóbbu ma samay bagage ci ay yeneen ay yoo xam ne pour Ama Baldé daan ma mais bi ñu suba lay bëree nas mi ngi may déglu Pambaay mi ngi may déglu xam nga nas des fois pression bi da koy ëpp doole ndeysaan mu ku ku ku am cafel ci man di nuyu di nuyu tamit jabaram Fàññang parce que damay Fàññang damay ànd ak moom ba 4 heures Fàññang du wax dara nas dafa am lu mu gée suma carrière di nuyu maga Mambay Paris Yaare Adama di nuyu Ndey Caam suma yaay la kooku moom Ndey Caam suma yaay la di nuyu Fàññang di nuyu Awa Marème ñi sama benn booy bu nekk NBA France Bra ñoom Assane ñi nekk ci gàll bi yëpp amul koo xam ne nii amul cër boo ma jox man ba ma xam ko ak yeneen détail xam dama ko jund ak ñoom di yàlla rek seytaane ba ñu dugg suñu diggante su su ma defee su ma a def loo xam ni war a saar a waa kër bu seen bopp jour boobaa suñu borom maa la ko ñaan jëlee ma fi jour boobu sama noo yi na yem foofu xalaatu ko ci àdduna parce que fi ñu ma fekk kenn fekku ma fa dina am xarit bu bees mais du tee fa war a saar nekk ma teg la fa fa fa nga nekk yow ma teg fa war a saar bu doon ma mel ni yeneen mbër yi mais xalaatuma ko dafa am sang bu baax sama yaram am na ñoo xam ne politiciens yi ñu bañ bàyyi xamatuñ leen lijjantiwuñ leen mënoo toog ba télé ba nuyu leen man Wara Sarr politique boole ma moom dama doon ñaan yàlla sax yàlla na ñàkk 2012 ñu xam guy gi ban nit la jàppe Wara Sarr mm. des fois ñu naan ma dégg baat bu garaaw ci nit ñu ni voilà comme que Wara am na koo xam benn bis dem du ma tudd tur su ma tuddee tur damay tooñ mm-hmm. ma dem ñu am fa ñu invité ma ñëw fa toog fekk Abdou Diouf moo ma moo ma évité ma ñëw foofu mu ni non yow kay walam jeex na wéy na ñun ñoo fi nekk ñun booy tudd tudd ñu booy nuyu nuyu ñu <laughs>